aousubillahi samil alim min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilah allazi bi niamatihi tatimu salihat wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillahi xaatimi nabiin wa imaamil mursalin wala alihi wa saxbi wa man wala ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla mu yokk ay leer ak tëbb saaxibil xatmi wal katmi Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane Serif radiyallahu anhu mboolem canteeg ngërmande yi ñu ngi koy ñeexal suñu sëriñ suñu yaakaar tey ak ëllëg Mawlana wasilatina ila rabbina cheikhul islam wa barakatil lanaami saaxibul fayda alhaaji Ibrahima Niass Baye Niass radiyallahu anhu ñu nuyu mboolem soppe yi ak njulit ak mbokki taalibe yi kenn ku nekk dina wàcce seen wàccuwaay di leen ziara di nuyu xalifa bi Mawlana Cheikh Mouhamadoul Mahi xaadimul umma Cheikh Ibrahim Niass ak mboolem njabootu Cheikh Ibrahim yëpp góor ak jigéen di nuyu suñu sëriñ suñu sang suñu soppee suñu yaakaar Mawlana Cheikh Baye Mamoun Abdou Mazharu Zati di ko ñaan yàlla gudd fan ak wér si barke Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ñu ngi leen di oo ci bés bu màgg bés bu tedd mooy bés boo xamante ne journée internationale dellu Kossy aimer servir et remercier Mawlana Baye Niass bas boo xam ne mooy bëgg baay liggéeyal baay ak sant baay ñes radiallahu anhu ki koy wootee mooy xaadimu saaxibil fayda abdu mazharu zaati moolaana cheikh ibrahim ibnu moolaana cheikh mahamadul mamoun ibnu moolaana cheikh ibrahim samedi le 23 décembre 2023 ca Kossy Baye bés bi nag ki koy ootee mooy cheikh Baye Mamoun bi nga xam ne yàlla da ko defal tawfiq ba nga xam ne mboolem fi mu meññee lu ko meññ yëpp dañoo am ngërmande Mawlana Cheikh Ibrahim boo demee ci cosaanam moom mu ngi judd ci Medina baay ci kër yaa xalifaat yi kër googu noonu kër la goo am te ne fa la Mawlana Cheikh Ibrahim Niass doon dalal ay ganam ganu sërif yëpp fa naan daan dal. Baye ànd na ak Serigne Mamoun ci Makka muy ñuy wër Kaaba gi Baye mu ngi lëngu Cheikh Mamadul Mamoun Cheikh Ibrahim Niass ne ko faat dem. nekk na jigéen sëriñ Mamoun xam na kan mooy baay ndax lu mu wax rek pé yàlla bi ko wax ndax moom du waxantu mu ne ko waaw dëgg la mu ne ko su amee juróom weer na ma ko àndal fii Sénégal ma topp ko ndax xale bi waa bëgg mu juddoo sama pegg xale boobu nag mi bàyyi ma ko wax xale waaye duñ ko wax xale ndax mag la ci yàlla macha allah mooy ngi juddu bés ajuma le 26 août 1971. Euh, yaa Ami Niass am te ni mooy yaayu Cheikh Abdoul Baaxi dem ci baay fekk na baay solul na ba waaj a génn pour julli ajuma jiite ajuma mu ne ko faat dem de nekk na ci mat na nga ko ñaanal yàlla baay laaj ndox ak kaas ñu jox ko baay jàngale mi jàng jox ko mu dem jox ko maire bi mu ne bu muy naan ndox mi rek bu muy sentir ndox maa ngi dugg ci biiram rek ci la sentir ne Mawlana Cheikh Baye Mamoun gaañu na àdduna mu nekk mbégte bu baax ba baay jullee ba pare. bàyyi laaj ne Fat Dem fa la mujj soxna Fat Dem fu mu mujj ñu ne ko mucc na am na doom bu góor benn sage femme bu ñaan soxna Penda moo ko rawale bàyyi ne leen déedéet déedéet Fat Dem Penda rawale ko de sama ndox mee ko rawale loolu nag puukare la bu ñu rey sant yàlla la moom te ne ku toll ni Cheikh Ibrahim di wax ne moom moo rawale suñu sëriñ moo waanaa Cheikh Baye Mamoun loolu ku ko ndawa ñu ndawaluñ ko ñu ngi sant yàlla bu baax ci loolu Cheikh Baye Mamoun moom nga xam ne yàlla may na ko tey moom moo dellu Kossy Baye dem dëkk Kossy ci l'an 2012 ci weeru koor 17e jour moo xam ne ndigal diggante ko ci Mawlana Cheikh Ibrahim ngir mu dem dellu Kossy si ay conditions yu métti ko xam Kossy Baye xam ne foofu bakkan amu fa ndax noonu la bindoo waxuñ ko pour xeeb dëkk bi ndax ñu mënuñu xeeb Kossy ndax Kossy man baa fayda lépp fa la ko waaye xam nga nekk Dakar si condition de vie moo gën a neex nekk Kossy waaye sëriñ bi Mawlana Cheikh Baye Mamoun tànn dem Kossy dëkk Kossy baay di fa yeewoo yàlla may ko ay doomam ñu ñu ñu ñu ñu juddoo ci dëkk bi yàlla dafa ne ko fiix ba am na doom sax bu mu tuddee Kossy bu lay da ñas lépp rek ngir wane bëggeelam ak jeex gi mu jeex ci Mawlana Cheikh Ibrahim Cheikh Baye Mamoun yàlla da ko defal tawfiix moo xam te ne ñu ko meññ ñëpp ci maamam yi moo ñëwee maam Aysatu Ndiaye nga xam te mooy nekkoon soxna si sëñ Daara Ousmane Ndiaye kooku dafa gërëm Cheikh dafa làq ngërmande moolaana Cheikh Ibrahim loolu moom lu kenn du lakk sikk sakk la boo xoolee maamam Faj Jaañ moo nekkoon yaay Serigne Mamoun tamit dafa lakk ngërmande Mawlana Cheikh Ibrahim soo xoolee maamam Thierno Assane Dem tukulóoru baay ñëpp sikkuñ ne kenn sikkul ne Thierno Assane Dem radiyallahu na ngërmande Mawlana Cheikh Ibrahim boo xoolee baayam Serigne Mamoun radiyallahu anhu Mamounu Samaay wa habtu lahu nafsi wa kullama maliki nga xam ne. doom la woon ci baay waaye taalibe la woon ci baay doom juñ xam doom ju baayam gërëm ku làq ngërmande Mawlana Cheikh Ibrahim dafa liggéeyal baay ba baayam gërëm ko kon Cheikh Baye Mamoun ni ko meññ ci wàllu yaayam ak wàllu baayam yëpp dañoo làkk dañoo liggéeyal baay ba Baay Ñas gërëm leen moo ko may li mu am tey moo ko may fi mu toll nga xam ne ñi ko gënoon noonu si adduna bi sax nangul lañ ko ne moom daa bëgg Mawlana Cheikh Ibrahim fekke naa benn jotaay fii ci na Baye benn journaliste laaj ko ne ko sëriñ bi bëgg bi nga bëgg bàyyi ñëpp di ko wax boo dox sax nit ñi foog ne bàyyi dox si nduróo bi nga nduróog moom macha allah ci kàllaama ci jëmm ci ci ci lu nekk lan moo waral loolu bëgg bi bëgg bi lan la. sëriñ bi mu ne man ba may bëgg bàyyi ñes radiyallaahu anhu boobu yàlla bindagul asamaan bindagul suuf loolu nag wax la bu kawee boo xam ne soo ko bëggee firi zaahir rek mën ngaa te loolu dëgg la moom ba ngay bëgg Mawlana Cheikh Ibrahima yàlla amalagul asamaan amalagul suuf amalagul dund amalagul dara dara dara loolu nag ësal la woon alhamdulilah rabbil alamin bu ñëwee fi ci ëpp tamit dinañ ko dëggal kooku mooy oote ne ñëpp nañ ñëw si bës bi bésu dellu Kossy Baye Niass radiyallahu anhu moo wax ne gis na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay fukki fukki yoon mun naa ko dellu leen Kossy dellu leen Kossy balaa boobu Baye Niass nee na guddi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent si sil xijja tabaski Baye mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwal ko Kossy seet si ne ko biir Kossy ànd ak Abu Bakrin nee na ay fan baay nee na maa ne xitmaal te ñu ñett ñoo bokk tëdd tëdd ci ci lal bi bés boobu nag la sëriñ bi di màggal bés boobu am te ne yonent salaa salaama ñëwoon na seet si Mawlaana Cheikh Ibrahima ci Koosi bàyyi mu ne yonent bi moo ko wax ne na dellu Koosi 1967 ci la bàyyi de décision dellu Koosi maanaam bu nekkaan dina ba tisbaar ba ànd pare dafay def convoi dem Koosi Baay fa lay nekk ba timis jege. mu mu daal di mu daal di dellu Medina Baye def na ko ba 1975 radiyallahu anhu 1967 ba 1971 mu nekk 4 ci la Mawlana Cheikh Baye Mamoun gane àdduna bi mu nekk ñeenti at taalibe Baye nag soo waxee 4 rek wala ñeent rek seen xel am na fu muy jëm te fa xam ramzu axlillaahi falaa tubulaa bi ñu koraani ñeent at yooyu ñoom la def rek muy zaahir Mawlana Cheikh Baye Mamoun gane àdduna mu tegaat ci quatre ans encore mu yeneen quatre encore muy 1975 ci la Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass daal di génn àdduna daal di wuyu boromam mu nekk ñeenti yoon ñaari woon ñeent kon donc loolu mooy dëggal ñu defaat ci 40 ans après Serigne Mamoun génn àdduna en en en 2011 Serigne bi am ndigal ci Mawlana Cheikh brahima mu dem dellu Kossy pour dëkk Kossy pour dundal Kossy pour taxawu Kossy ñu ngi ñaan yàlla. yal na yàlla may ñu fekkee ba si ñun ñëpp le 23 décembre képp ku taalibe Baay ku soppe Baay képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu ngi lay woo ci bés bi ci bésu Mawlana Cheikh Ibrahim nga xam ne moo suñu yaakaar adduna ak alaxira moo ñu xamal yàlla moo ñu xamal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu gindi moo ñu defar kon ñu ngi leen di woo ci bésu dellu Kossy bëgg Baay liggéeyal Baay ak sant Mawlana Cheikh Ibrahim samedi 23 décembre l'an 2023 fii ci Kossy ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëfe Bañas ausbillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin saydil awalina wal axirin saydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gërëm suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ahmed bin Muhammad Tijaani radiallahu anhu waaye xaasatan saahibul xatmayni wal xatmul nubuwati wa xatmul wilaya Mawlana Cheikh Ibrahima Ñas alkawlaki mbokk jullit yi mbokk islaam mbokk ixsaan mbokk imaan ñu ngi leen di nuyoo ci nuyoo gi gën a tedd muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. toogaay bi boo leen ko gisee ak wax ji mooy dafa am bés bu am solo boo xam ne euh, fayda tijaaniya dañ koy xamal muy gàmmu koosi bi nga xam ne at bu nekk jëmu ju tedd ji di mawlaana cheikh Baye Mamoun radiyallahu moom moo koy amal ma leen di wax ne jaam bi ju deñ mukk di sàkku ndollal ci pay yàlla bi ma leen di wax ne béréb la boo xam ne képp koy taalibe Alaaji Ibrahim ngay yëg ne dëgg-dëgg am na loo xam ne maa ngi koy yëg te ma ko néeg mu ngi balee fële ñuy wax ne mooy Kossy ci atum 1929 ci fii di na ñaseen la Baye ñas taxaw ci gàmm yoor yor taxaw ci kaw taabul me man may Cheikh na Ahmed Tidiane radiyallahu anhu képp ko bëgg a xam yàlla nag ma fekk Kossy kon mën nañ wax ne Kossy mooy waañu faydu bi mën nañ wax ne lépp ñu ngi ko fa toggee kon li des yëpp ay consommation la yoo xam ne fa la ballee ñu wax ne faydu tijaniya Mawlana Cheikh Ibrahim dañ koy topp waaye nag dañ koy consommer Baay radiyallahu anhu li ñuy consommer la boo demee ci marché bi booy jënd dara la nga namm pour jënd ko rek loolu mooy Mawlana Cheikh Ibrahim mbokk yi képp kuy taalibe war nga di sàkku ndollal képp kuy taalibe war nga di yeesalaat say mbalaan yi nga xam ne moom nga làmbo ngir li dox sa diggante ak sa borom gën a yówén mooy lan mooy nañu delluwaat koosi bi nga xam ne àdduna bi yépp bu ñuy wax jërëjëfee Baye Niass lépp a ngi bale ci koosi kuñ ci àndal ñu ngi ci àndal Abdou Mazharu saati jëmm ji nga xam ne képp ku xam démb ak barki démb xam ne dëgg-dëgg waa ji mosu fee jóge te yàlla dafa waxoon yonent bi na ko del fàttali gaa yi besu yàlla yi ma yàlla ñetti bés la am bés bi nga xamante ne ci la feeñal melom bi bés la ci bésam yi waaye bés bi nga xam ne ci la feeñal turam bi bés la ci bésam yi waaye bés bi nga xamante ni nag ci la feeñal jëmmam ji muy bés boo xamante ni benn bés dootul mel ni bés yooyu noonu dëgg-dëgg kon mooy ñetti bés yi nga xam ne moom moo am ci àdduna kon bu ko defee bés boobu nag mooy bés bi nga xam ne moo feeñal ñaari bés yu mujj kon bu ko defee nañ fuglu ji jëmm jooju nga xam ne mooy Mawlaana Cheikh Ibrahim nga xam ne moom moo ne wa man yuxibu nii wa man yaraani fii jannatil xuldi bila buxtaani is am na ni xalifatu tijaani mawhibatan min ahmad al adnan kon dëgg-dëgg buñ bëggee ndolleel buñ bëggee yeesalaat suñu bopp buñ bëggee jokk waat ci pay yàlla bi buñ bëggee tuub buñ bëggee delluwaat ci cosaan nga xamante ni ñu ñëpp laaboon mooy nañ delluwaat koosi dégg nga ma ne damay faral di wax ne bu bëggee kaaraange maanaam sécurité dégg nga bu ñu bëggee yokk ci yàlla bu ñu bëggee liberté buñ bëggee paix intérieure mooy nañu delluwaat ci Maulana Cheikh Ibrahim mi nga xamante ni kenn ku nekk ci ñun loo bëri bëri alal xam nga ne dëgg-dëgg am na lu ma manqué woon ci suma dund loo xam ne mënumaa jàkkaarloo nit di ko ko wax waaye équation boobu noonu bañ Niass mooy ki nga xam ne résuder nañ ko kon bu ko defee Wolof dafay faral di wax ne. dégg nga lala faloon ku ko folli mu fo nga follee ko kon li ñu fal ñu ñëpp xam nañ ko mooy Maulana Cheikh Ibrahim te lépp a ngi balee koo si kon képp ko bëgg ndollal ku bëgg a yokkute ku bëgg a sant yàlla ku ba wax alhamdulillah wa shukrillah la ilaha illallah muhammadu rasulullah te muy dëgg te sa digganteeg loolu dara du ci jox mooy nañ jokkuwaat ci Maulana Cheikh Ibrahim yee salaat suñuy mbalaan moom la ñuy woo mbooleem taalibe yi leen wax ne buntu sant yàlla la ay buntu yokkute la buntu xitma la ñuy wax ne taalibe yi nañ gën a ci loolu liggéey gën a rëy liggéeyal alaaji ibrahima ñas radiyallahu anhu mbëggeel rëy bëgg mawlaana cheikh ibrahim radiyallahu te nit bu fekkente ne bëgg nga ko dëgg-dëgg da koy topp ci li nga xam ne ci la ne baay ba muy firi mbëggeel dafa wax ne mbëggeel daal mooy lu méngoo mooy luy dëppoo te loolu mooy dëgg bu ñu bëggee alaaji ibrahima ñas fépp fu mu nekk ci dëkkam yi rek war nañ faa teew ndax bàyyi ba muy lim dëkkam yi dafa wax ne saam suma dëkk la Medina suma dëkk la Tayba suma dëkk la Poosi suma dëkk la kon dëgg-dëgg ñu war a xam ne dëkk Cheikh Ibrahim yi war nañ di fa teg suñu tànk ci zaahir ngir lan ngir fuglu ñëwub Cheikh Ibrahim wala taxawaayu Cheikh Ibrahim ci xaalam bi te bàyyi li mu def ci ñun mooy dafa def ci ñun teraanga boo xam ne li alquran di wax ne walaqad karam naa bani aadama yàlla dafa teral jàmm bi ma ne du teraanga xaalis du teraanga ay soxna du teraanga ay kër du teraanga dara waaye teraanga bi yàlla def ci ñun mooy dëgg-dëgg kiiraay bi nga xam ne dina ak suñu diggante suñu borom ma nga xam ne dinañ mën di communiquer ak xaalam bi waaye dinañ mën di communiquer ak mbindeefu yàlla yi waaye dinañ mën di communiquer di jëflante ak mboolem mbindeef yi nga xam ne moom la yàlla amal te dëgg-dëgg dañuy yëg ne ki ñuy ki ñuy communiquer kenn rek la muy borom bi subhaanahu wa taala ndax alxalku kulluhum madahiru la ko ñu ngi leen di fàttali ne leen buntu ndolleel buntu sant yàlla ubbeekuwaat na kan moo ko wate suñu sëriñ Maulana Cheikh Baye Mamoun Niass Abdou Mazharu Zati nga xam ne képp ko gis te mosoo teg sa bët yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam zahiran dëgg-dëgg boo xoolee jëmu jooju gis ko ci lewetam ci tabeem ci mbaaxam dégg nga ci bëgg doomi aadama yi dégg nga ci itte yu kawe yi waaye képp koo xam ne itam mosoo teg sa bët Cheikhu Tidiane boo gisee Maulana Cheikh Baye Mamoun sa xel fàttali la ko waaye rek képp koo xam ne mosoo gis saaxibul fayda muy Maulana Cheikh Ibrahim boo xoolee Baye Mamoun xam ne dëgg-dëgg démb mooy tey jëmm jooju moo ñu ubbil buntu sant yàlla ci ñu war dagg suñu yitte yépp képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñu ngi lay woo ci bés boobu ci xitma ci xalaat ci xéewal ci lépp ndax Baye képp ku ko jox benn na la leer ne di nga jot junni Baye mooy jëmm joo xam ne defal jaamu yàlla yi teraanga rek la kon ñu ngi koy bàyyiloo jaamu yàlla yi xel ñu ñëpp rendez-vous ñu bàyyi ko incha allahu rabbi le 23 décembre bii ñu nekk ca Koosi incha allahu rabbi la yombal lépp ci barke Baye ngi jéggalu kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.